damay baale par force man mosuma ko dégg <laughs> wala yow da ngay baalaale sa bopp wala da ngay baalaale say mbokk donc munoo ci sori tant que comme Pape Moussa lim la wax <laughs> ñu indi loi bi nga xool la lañ ci dugal ak lan lañ ci sërëxal ah. baal naa sama bopp très bien <laughs> xam ma la qu'est-ce que l'objectif final chercher c'est quoi on va parler de stabilité de et cetera xam nga euh, nous sommes entre nous démb dama suivre euh, Côte d'Ivoire seen information ñu ne le président Alassane Ouattara euh, après Côte d'Ivoire gagné na Coupe d'Afrique léegi mm-hmm. réconciliation nationale ah, il a gracié beaucoup oh, il a gracié des gens qui ont fait quinze ans en prison ni réclusion et cetera mm. moi j'aime toujours donner l'exemple de la Côte d'Ivoire à cause de ay lois yi ñuy dëpp ko dëppërndi comme chez nous depuis l'ivarité ca ivarité baax ca conséquence conseil yooyu ñuy dëpp ko dëppërndi du ñu bañ respecté li nga xam ne moom mooy les règles du jeu moom moo leen jural une crise ñu am plus de 4000 morts. Mm. après ñoom mm. sur le plan économique ñu tardé. personne ne le souhaite tu ne le souhaites pas je le souhaite pas parce que ñun dañu am benn déchirure sociale bu am ci mm. suñu dëkk. Mm-hmm. lan la c'est politique. avant on parle de réew mi affaire waaso wala tarixa non les gens ne sont pas divisés sur le plan de la religion ou sur le plan de l'ethnie mais sur le plan politique on a même remis en cause la cohésion nationale tu as parfaitement raison le seul dialogue valable et unique c'est le jour de l'élection où l'électeur dialogue avec le programme des candidats où l'électeur à la liberté de choisir hmm. où l'électeur voit ses actions xam nga mos naa fi wax ma nan la ñu mën a waxtaane coow li lu muy bëri bëri bëri bëri ñaari nit ñoo nekkoon ci kaw Macky Sall moo nekkoon ci kaw Sonko nekk ci kaw Amadou Ba Diomaye c'est le prolongement de ça hmm. pendant toutes ces années ñoom ñaar ñoo nekkoon au sommet. Hmm. confrontation boobu nan nga mën a waxee ni yow da ngay defar sur le plan démocratique sur le plan politique nañu waxante dëgg le plus représentatif c'est Ousmane Sonko nga jël ko wekk ko teg ko nele hmm. tegee ko nele moom waxawul ba tey dé ba tey déggu mu wax <laughs> ah <laughs> léegi ay ñoñam ay ñooñam nga bëgg def cap manuel ma dëgg la ay ñooñam da nga dégg xoola ay ñooñam ak ñi mu nekk waaw mais xoola li si garaaw sax nañu ma jox permis li si garaaw léegi naa amatul permis spécial yow yaa jëloon mbir mi yaa jëloon yaa ubbi yaa def dëkk mu mel ni lidoo nga jàpp ñëpp mm, mm. kenn omewul nga xëy gars di ome par benn benn ça ne tombe pas du ciel c'est pas gratuit ça veut c'est des actes qu'on a posés maintenant kan moo ñu lan moo ñu indi situation bi ba ñu si impasse bu mel nii et pour man euh, nañu yàlla musal parce que. Ah. mooy li ma la wax tant que jëluma sama baaraam capp ci encre man gëw ma ni élection am na man loolu sama point de vue la parce que yëf yi dañ ko jaxase kan moo ko jaxase tonton grand frère moo jaxase lépp lépp wëlbati carte gi mélangé ko léegi nag Pa Moussa moom <laughs> constitution bi la bëgg ci xol bi ak loi bi. waaw ah, parce que réew dafa mais loolu léegi. on parle d'un dama lay conforté ma ah, yow tu m'entends mais tu ne la bëgg wax nii que. Hmm. loolu nga gëm man loolu laa gëm. Ah, gëm ko moo tax ma jàpp ni. Hmm. lépp lu ñu def loo xam ni. mingoowul ak sunu ay charte ak sunu ay règle réew. Hmm. ku ko jalgati yaa def lu dul yoon. et dama gëm ni Macky Sall loolu mu def daf ko jalgati. lan moo waral mu jalgati ko mooy jàngat bi. mooy bu fekkoon yépp jaar na yoon moom du mucc du mucc lay. bu fekkoon yëpp jaar na yoon. keneen a koy wutu te buggul kooku wutu. moo tax jaral na ko mu wekki loolu yëpp sànni fële fëlax ko nële na carte gi jaxasoo kat moo siy gañe c'est jaral na ko moom bu dul moom comme fiy teg. ni ñëpp perte c'est des intérêts croisés le PDS seen intérêt mooy nañ tasaat karte gi ñoom ñu mun a bokk. Hmm. coon ñaa angale démb mu ngi fa toog sol mbaxaneem moom intérêt mooy nañ tëbal affaire pour moom te barki démb loo ah. woon damay génn Sénégal affaire yooyu dama la bëgg a wax que. Ah, réew mi xooluñu ah, intérêt réew mi. non dama xoolu ñu intérêt réew mi. Hmm. ku si nekk yow yaa ngi xool li la arrangé. est-ce que la mais la vérité elle est man bu yàlla dee wax. ki ma ki ma bëggoon a voter wala ka ma bëgg peut-être bokkul ci 19 yi. mais ay la yéwén constitution Sénégal fii lañ doon toog Pa Moussa lañ doon wax force reste à la mhm. lañ doon mhm. li conseil dogal ne article 92 nee na li ma xas a dogal kenn du ci dellu ginnaaw. Mhm. fa laa budde léegi ñu doon wax force reste à la loi nee nañ nañ jël loi boobu ko teg ko nee. lañ toll donc ça veut pendant douze élections présidentielles benn lañ ci toxal kan moo ko toxal Macky Sall moo ko toxal amul lu après nag les gens vont me baal Macky Sall da ngay wax non du Macky Sall député bi la lii bi la député buy toog ne la man je suis député Macky Sall wala député Ablaye Wade c'est sa volonté politique maintenant on est dans cette situation où on ne sait pas où donner de la tête un dialogue où on n'a pas dialogué avec les principaux acteurs concernés les principaux acteurs concernés ce sont les dix neuf candidats retenus par le conseil constitutionnel. ñoo décliné ne demuñu. ñaar nga ci am l'exception de deux. ñaar nga ci am léegi yow pour nga jëmmal affaire bi nga dem woo ay pa woo ay ñii ay sama copain Mame Ngor Diazaka ay affaire yooyu donc lii nii benn genre coup de théâtre bu ñu maanaam dama la bëgg wax li ñuy won nii. ak lañ ci jublu ak la ñu mbëbët ak la ñu nas ba teg ba pare. wute na ak li ñu won nii. donc nag donc donc la l'amnistie Euh, man mon problème c'est très simple je parle de maa ngi maa ngi koy laajte wax dinaa ko waxaat Mouhamed Missine hmm. c'est un malade mental ba tey kenn réglé wul kaam neuf mois en prison il a tous ses documents. Euh, xel bi neexul ñu tëj ko. waaw. mooy li ma la wax. Sénégal comme Sénégal comme film quoi. billaahi. et pourtant l'article cinquante nee na la kooku warul billaahi wallaahi wa le gosse on est tellement lié man ak moom un soir il sort à trois heures du matin ngemb jël yaram yëpp diw suuf man maa ko jël dem dugal sama néeg ci pet sang solal ko yére ñuy waxtaan ma koy xëcc su garabam jeexee parfois maa koy jënd mën naa la seetal garab yu muy naan yëpp. Mhm. am ay ordonnance am. ça fait mois bi ma ko waxee bële paas. nan lañ ko jàppee daanaka. ci manifestation yi ku ku kook ay parrainage am matul àndul ak sagoom. bi ma ko waxee fii si détenu am na ko mu ngi nii jeune bii la am na détenu bu ma expliqué ne ma chambre tel la nekkoon d'ailleurs sax jour bi ñu ko njëkkee woo tribunal bi mu ñëwee waxi mu wax comme kiiwul juge bi daf ko renvoyé waat c'est ça léegi koo xamante ni dafa nekk su traitement bu nekkul sous traitement du ànd ak sagam on le met en prison pendant neuf mois après même bu ñu ko bàyyee sute na. son cas c'est grave. ah léegi tout ces personnes ñi nga xam ne ils ont subi Pape Abdoulaye Touré dañoo damm loxo bi damm tànk bi après loolu damm yooyu ñu ko damm c'est zéro quoi y a rien. ñu faase ko. nit dignité humaine même su nit defee sax am na une dignité humaine les nervis qui tabassaient les gens là après on va mettre l'amnistie pour dire que waaye politique la ko dee yaa comme ça si c'est ça une amnistie moi j'en veux pas. loolu li mu wax nii mooy wax ji. c'est-à-dire ëllëg maanaam kenn du sañati. xeex pour dara ci Sénégal parce que dañ naan dañ naan dañ naan ko doy mais mais mais man droits humains yi les bavures policières qu'on subi du mujj fenn ce que les subi du mujj fenn même le président du Sénégal toog ne y a pas eu de torture Macky Sall moo toog mu wax lool Aïssata Tall Sall wax lool waxuma la ñoom ñi ko nettali wala ñoom ñi ko dund ce que les ñii perte seen économie am na ñoo xam ne dañoo dem daaji magasin wu jaamur sàcc sama kanam man. visiteurs hmm. salaam gold li ñu wax xam naa ko parce que guddi boobu ay raskulu laay nit indi am na ñoo xam ne rax nañ ci seen problème la. Hmm. mais léegi au nom de quoi suñu amnistie léegi loolu yëpp li fi xewoon. yow kay yow mi forcé amnistie bi da nga see am intérêt xanaa. Ah. yow defoo kay. Hmm. yow yaa waxoon ñii ay terroriste lañ <coughs> ñii force spéciale ñii nàngam ñii sàngam kon ça veut dire li ñu tegoon ci kaw nit ñi yëpp waxi politique la woon ça veut dire que la ma doon wax mooy au lieu ñu am justice mais dañu am solstice mën nañ la fekk fi nga toog sosal la teg la tiis bi denc la ba doo gis jant bi ba mu neex leen ci seeni cooba rek au gré de la volonté du prince. Hmm. ñu xëy ubbi palanteer ne acca yow nit àtte wuñ la téye nañ la juróom-ñeenti weer waxuñu la lu ñu lay toppee. àtte hmm. wuñ la xëy nañ la bàyyi nañ la ba pare dóor la LP bi mooy dañ laa ñaas mooy avertir nañ la donc ça veut dire euh, yeneen dëkk yi xar yëpp bi ñu waree pour jóg defaru dañu ñëw ne et réconciliation c'est-à-dire même même pour ma baal la il faut nga nangu. ma xam ne ndax yaa def. waaw Pa hmm. man bu ma tooñee kii damay accepter balaa ma naan ko baal ma damay accepté ni man maa ko tooñ ba pare. mais bu dee man tooñ ma ko nan laa koy waxee baal bu fekkee ñun xamuñu fu dëgg féete kan moo ci am responsabilité kan moo def ak kan moo deful numéro 9 bi boobu léegi maa ngi koy wër mënu ma koo gis koo gis <laughs> d'accord léegi ñun léegi kon dañuy effacer loolu yëpp léegi bakkan yi rotoon yëpp c'est zéro c'est nul et c'est non-avenu donc maintenant pour des intérêts politiques du moment pour des intérêts particuliers du moment on peut faire table rase sur tout ce qui s'est passé sur toutes ses conséquences donc pour man le faire c'est aussi légitimer mmh. la violence légitimer l'impunité ouais. tout toutes ces bavures yeah. légitimer tous ces morts yi nga xamante ni rey nañ leen te du mujj fenn ku mel ni Birahim euh, Seck bu Forum Civil moom da cee teg sax ni bu boobaa tamit da ngeen joxe permis de tuer effectivement waaw pour daal bi nga xamante ni jox nga ko mais euh, Pa Moussa bëgg naa ñu taxaw ci taxawaayu opposition bi hmm. ñoom it dugg nañu recours ca conseil constitutionnel recours boobu noonu contre quoi le fait que président jàpp dialogue pour date bi ñoom ñu ne dañoo delluwaat ci conseil constitutionnel maanaam moom dafa président dafa dugal la 2 juin ñoom ñu attaqué le 2 juin. déedéet non non non non c'est avant ça. mooy en fait ñoom démb jour bi président wootee dialogue. Ah, ok ñoom dañoo dem conseil les 16 autres. qui n'ont pas participé. au dialogue ils ont mis un recours. benn recours benn recours pour par rapport au président. quand il a quand on lui avait juste de prendre un un un décret pour euh, prendre une date.